عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وعاشق covid 19 di lëmbee àdduna wërngal këpp tax réew mu nekk ak matukaay yi mu jël ngir mën a xeex ak moom bokk na ci ay ndogal yu am solo yu état bu sénégal daal di jël cheikh mouhamadul xoreesh ibrahim Niass nekk député secrétaire élu membre du bureau ci pencum ndaw réew mi yëkkati ay kàddu ndénkaane jëmee ci askan wi di ñaan couvre-feu bi nga xam ne def nañ ko eh, nit ñi respecté ko su ko defee képp koo xam ne yaa ngi ci région sa mbokk ngi ci beneen région bu fekkee feebar bi dal la nga jàpp ci yàlla toog fa nga toog pour beneen région bi te dara jotu ko mën a taxaw sa gannaaw wala mën la taxaw yow waaye su fekkee yaa ngi déplacé foo am mbokk dem wàllu ko bu leen feebar bi dalee yéen ñëpp yaakaar naa dana jafe pour kenn assister li des ci famille bi. ànd ak loolu jàngoro ji di law na sénégalais yi daal di xam ne léeg-léeg du mbirum sëriñ ne yëf yi domaine scientifique la. lii du domaine nu sëriñ xaj na sëriñ bu fekkee am na lu muy wax taalibeem mooy wax kon nu muy ñaanee yàlla xaj na foofu la sëriñ mën a intervenir mais bu wax dëgg yàlla nit ñi war nañ passé ci na gëm sëriñam mën na ko bu mu àgg ci bu mooy dëgg parce bu ci covid bi daloon léegi wax ji bëri na lool ci julli mbooloo moom Cheikh Mouhamadul Khoureychi Ibrahim Niass nekk secrétaire général de l'union parlementaire des états membres de l'OCI muy andi ay leeral ci ñenn ñiy jaawale cas 68 bi Mawlana Cheikh Samal Hadj Ibrahim Niass julli woon juma file ci Medina Baye ne ñaari cas yi bokkut Ibrahima Niass mooy suñ sëriñ dafa ñu daan wax ne diine xel lay waxat yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy référence su bépp jullit avant ñuy wax benn sëriñ ngelaw rek am na ci dëkkam ngelaw bu ànd ak taw daf na nañ wax kenn ku ne mu julli këram mais lii virus la boo xam ne même ci ron microscope pour nga gis ko problème la te dafay rey am na ñuy wax 68 bi bàyyi jullee ajuma fii mais 68 ak cas bi bokkut 68 dafa am ñu opposé woon état ci jamono boobu profité ci grève 68 bi ci jaxasoog nit ñi Senghor décidé pour nit ñi bañ a génn dem julli ji ajuma Cheikh Mouhamadul Khoureychi Ibrahim Niass nekk député ci péncum ndaw réew mi secrétaire général de l'union parlementaire des états membres de l'OCI bëgg na askan wi yépp tënku ci ndénkaaneeg njiitu réew mi ngir mën a jàmmaarloog virus bile bañ delluwaat ci virus en général scientifique yi ñoo koy liggéey garder ko ci ay laboratoire lañ koy def xaj na ci niveau quatre ou sept ci sous-sol bi la nekkoon nekk ci ay laboratoire lu ko génne lan la loolu nit ki war na ko xalaat lu tax ñu génne ko lan la war nañ ko xalaat cible bi lan la mais virus du génne boppam ci boîte laboratoire ci ay biir frigidaire génn di tasaaroo ci àddina bi àddina bi yëpp a ciy liggéey fi ak trois quatre mois quatre mois yàlla mën nañuy dimbale virus bi jógee ci àddina bi waaye pour le ki ko génne kan la ak lu tax mu génne ko liñ mën a def rek mooy moytu ba duñ bokk ci cible yi nga xam ne moom la ciblé donc virus bi génnul tëbul génne boppam wala bu génnee boppam dem ci animal wala ci nit am na lu ko indi foofu lu tax exact période bi mu génn loolu mooy li ñu intéressé fi mu nekk nii muy virus boo xam ne nag yàlla def na garab gi koy liggéey gisaguñ ko Euh, amaguñ ko scientifique yaa ngi ci xalaat muy virus bu am danger dafay toxu nag jógee ci nit dem ci nit par ay voie yiñ ci gën a ràññee mooy ci bët lay jaar wala ci mbakkan wala ci gémmiñ parce que doomu aadama dafa am habitude euh, deux trois minutes cinq foog mu laal kanamam gi alors su fekkee ne contaminé nga ak virus bi mu tax sa loxo nga laal sa bakkan mën na dugg nga laal sa gémmiñ mën na dugg nga laal sa bët mën na dugg moom lan lay attaque bu duggee ci moom bu duggee dafay jafandu ci proxi nit parce que virus bi bu wàccee directement ci estomac bi estomac bi mën na ko wàll mu détruire mais dafay langaamu ci porox gi parce que moom cible mooy poumon nit poumon yi lay attaqué pour détruire résistance yi nga xam ne moo fa nekk boo gisee mu aay ci ko amee diabète aay ci ko amee euh, lu mel ni sida yàlla na ci yàlla musal ñëpp ak lu mel ni asthmatique yi ak yu demee noonu rawati nag ñi nga xam ne seen groupe sanguin groupe ala la ñu scientifiquement wax nañ ni ñooñ la gën a yàpp ki nga xam ne itam dafay tux cigarette lu gis nañ ne bu ko attaqué moom la résistance bi du bari un mètre nangam yi ñu wax distance diggante nit ak nit loolu itam nit ñi respecté ko parce que point bi nga xam ne moom mooy résister seen feebar boobu moom virus bi bu duggee loolu lay attaqué moo tax muy gaaw a gaañ ay ñi nga xam ne dana leen song surtout ñi nga xam dañoo salaatullahi